rafetal ko te tamit musu jaar ci ak ndaw maanaam jaajaaram yëpp gannaaw bi mu jàngee ba ut lu mu bëggoon ci xam-xam yàlla def mu dellu si fii di jàngale di jàngale ubbi daara di jàngale eh, di tarbiya eh, nit la koo xam ne àdduna soxlu coo doon dara lu dut defar jaamu yàlla yi xale yi mu def ci ñoom xam-xam def ci ñoom jikko yu baax def ci ñoom ñu bëgg seen sëriñ di Mawlana Cheikh Ibrahima loola tabax ci képp koo xam ne oustaz Ahmed Ba jaar na ci yow rek mhm. eh, jàngal na la su fekkoon ne da nga réer sa réer gindeeku na mhm. su fekkoon ne da ngaa ñàkk xam yàlla mhm. xamal na la yàlla bëggaloon na la Cheikh Ibrahima Niass bëggaloon na la Cheikh Tidiane bëggaloon na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def ci yow jikko jikko yoo xam ne fu ñu teew da nga xam ne ñii ñu yar leen ñii ñu jàngal leen ñu tarbiya leen tey alamul lislaam adduna bi yëpp xam nañ ko. ci Margaret ci ndawam juróom fukki at ak benn la ko dund. waaye liggéey na loo xam ne ku dund téeméer at liggéeyu ko. tey bés bi génn génnee adduna. gis nga gis ngeen adduna yëpp. tuug nañ di naqarul. dafa nekkoon koo xam ne ku attaque woon lislaam mu taxaw défendre. ku attaqué woon tariqa bi. mu taxaw défendre. ku attaqué woon faydatu Ibrahima. mu taxaw défendre. yàlla may na ko xam-xam boo xam ne tey soo indoon sa livre tey mu jàngal la yow da ngay dégg bi ba mel ni yow loo xamoon la nga fàtte ko mu fàttali la ko ndax maanaam fasaaxam ak lim xam xam ko xamin bu rafet yàlla may ko ci tamit ubbeeku boo xam ne su waxee rek yow mi nga xamoo ne mosoo xam dara da nga jéem a xam da nga am itte pour jéem a xam su fekkoon ne da nekkoon ku xam da nga yokk ci li nga xamoon gën a ubbeeku waaw loolu yàlla maye na ko ci moom ba taxoon surtout ndaw ñi ndaw ñi la jël tabax leen tabax boo xam ne def ci ñoom xam-xam def ci ñoom jikko def ci ñoom bëgg yàlla def ci ñoom te kum ci àndal daf lay wane gannaaw bi nga amee xam-xam bi nga xamee yàlla bi nga amee njub li ma lay xiir mooy nga dem liggéey ñaq mën a teral sa bopp teral teral sa yoon ñi àndoon moom ñëpp kenn ku nekk am nga ci loo yëngu ndax jikko mm-hmm. boobu la def ci yow mm-hmm. kon nag tey lislaam mooy ñàkk mm-hmm. tariqa bi mooy ñàkk fayda mooy aduna mooy ñàkk koo xam ne maanaam damay wax ne bibliothèque moo daanu bibliothèque moo daanu man dama ko faral di wax ne ko kalaamu ko shifaawoon maanaam yow sa wax dafay saafara dafay faj tey soo ñëwoon ak xol boo xam ne xol bu lëndëm su waxtaanee ak yow su waxee nga soo ko dégg rek xol na la leer da nga ubbeeku ci anam bu nekkit sa wàllu àdduna soo ci jaaxlee su waxee yow waar la ci yàlla teg yàlla ba nga fàtte jaaxle boobu nit la koo xam ne dërëm du tego ci loxoom lu mu am jox na ko jaamu yàlla day xëy war a joxe dépasse bu war a joxe dépasse nit ñëw sëgg wax soxla mu jox ko mu wax waa këram ñu débouré ci ndaw kooku dama wax ne ndaw la ci at waaye ci mag ñi la bokk amul sikki ci mag ñi bokk kon tey fii ñu toog tey moy këram fii mooy zaawiyaam bi nga xam ne moom la fi def pour comme defu ko rek lu dul jàngal nit ñi tarbiya leen xamal leen yàlla mhm. loolu loolu taxoon mu def fii aljuma bu jot fii la ñuy dajee dégg nga di def xadara mhm. dégg nga tey yàlla def yàlla moom na ko mhm. ñu ngi nangu ndogalam waaye tey ji tey alhamdulilah kii mooy rakkam di Ibrahim tey moom lañ teg mu uutu ko ci place bi mu newoon mm-hmm. uh, uuf njaboot gi mm-hmm. uuf taalibe yi uuf lépp ci lum doon yëngu mm-hmm. kon nag uh, ñu ngi sant ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla dëgëral ko yàlla jàppalal ko en bi diis na yàlla ko yàlla woyofal waaw yàlla ko yàlla woyofal kon nag ci gàttal amul lu ma ci wax comme heure bi ñu ngi ñuy xaar. dëgg la léegi ñu jox Seydi Ali. dëgg la moom it muy. maanaam sax sama ñaareelu question yeeg yëpp tënk nga ko sax ci ci say wax. donc hmm. xanaa ñu bàyyi rek moom imam bu kii bi xalif bu bees bi moom tamit mu def témoignage ci ki lay génn àdduna. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen si kaddu gi gannaaw bi Cheikh Kabir waxee nga xam ne mooy muqaddam ci Nassane Deme kenn waral wax su waxee ba pare. waaye dañuy dolli si lu mu wax tuuti rek Ba moom mbiram neex naa wax ndaxte dafa judd fi mu war a judd jàngal ko jàngu alquran jàng elmu mooy charia mu jàngee ko Thierno Ndiaye dukke fële sa Ndar mu mhm. jóge foofu sama papa jox ko muqaddam Thierno Abdoulaye Dia kooku moo ko jox tariqa kooku moo ko jox tarbiya xamal ko yàlla li muy xamle fi yàlla yëpp si Thierno Abdoulaye Dia la ko xamee waaw gannaaw loolu ñoo mu ñëw fii dëkk fi si Dakar fi nga xam ne suñu mag mooy imam Haruna Ka moo tax mu ñëw fii Dakar si coobam la fi ñëwee bi fi ñëwee dal kër Moustapha Ka di fa jàngale ba yaa booy Seyda gis ko foofu jël ko yóbbu ko kiram bu fay jàngale ba mu ma ne moom loolu yu si a bari de koy tënk daal mu sos daayira loolu moo indi ba daayira bi tey yegg si fii si tënk daal loo xam ne oustaz Ba nit koo xam ne la nitu yàlla la soo ko gisee danga koy bëgg su waxee da koy bëgg su soloo da koy bëgg su bindee dangay bind sax bëgg sax bind yi bind ndax nu mu rafetee su waxee nag loolu kenn or la waxam or la loolu moo tax euh, ñàkk na nit koo xam ne nit ku rëy la adduna bi yëpp ñoo ñàkk islam ñëpp ñoo ñàkk tariqa bi faydu bi ñëpp ñoo ko bëgg am na ñoo xam ne tey woo nañ ma ñoo xam ne xaw moo sax ndax xam nañu Oustaz Ahmed Ba wallaay si si yaatoom mm-hmm. lii Cheikh Kabir wax soo gisee lu bëri te yegg fi li am da koy joxe mm-hmm. lépp loo xam ñëw nga ko diis nga ko mm-hmm. même su tukkee ba ñëw ñu njëkk a ñëw daal dañu jël lépp da nga yaakaar ne sax moom tukki wutoon ndax day jël yëpp ñu ñu rakka mën na ñëw sax du ñu am daal xol bi moom mel noonu xol bi moo yaatu woon alhamdulilah ñu ngi leen ñaanal yàlla di leen mastaw di ko jaale mbooloom yëpp di ko jaale daayira bi yëpp di ko jaale xalifa bi Cheikh Maay ak ñoom euh, Cheikh Mahamadul Maay euh, Cissé di ko jaale waa Medina yëpp waa kër Thierno Assane Deme ñoom ñoo ko moom ñii ñoo tabax oustaz ñii ñoo tabax oustaz papaam foofu la jokku woon moom foofu la jokku woon waaw loolu moo tax Cheikh mbir mi yëpp moo ko moom mbir mi moo ko moom mm-hmm. ñu ñaanal yàlla yàlla yàggal ko fi yàlla may ko wér yàlla may ko njaboru barke dara jeen teel allah xam naa ñu jox Thierno Aliou mu si kàddu ndax xadara bi jot na waaye nit ñi ñu ngi xaar foofu incha allah jërë ngeen jëf Thank you.